bismillah ikfini adar ya allah sali baqa abi بفيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وسوى ما للوعد لذيك يا الله mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax di nuyu itam seen kilifa Cheikh Ismaïl Mbacke euh, Cheikh Abdou Khadir nag moom wax ci moom yomb na yombut waaye melow gaa yu baax yépp rek mooy aw melowam te mooy melow yonent bi salaatu te mooy jikko yu rafet ak saxkum saxoon ci sunna nettal nañ wax ne am na bis boo xam ne da taw am ñu ko wax ne est-ce que doo toog tey bañ a julli ji ndax taw bi mu ne leen ab nawetkat lu taw ba bari bari bari moo gën a oyof dugg sawara nga xam ne kon kooku moom fi mu eggoon ci yàlla dafa jéggi day wa ñëpp seede nañ ci moom itam ni mu taqoo woon ak imaam yi jumaay Tuubaa ji nim ak ak ni mu fa doon ni mu fa ni fa meloon kon wax ci sëñ Abdou Khadir moom daanaka mooy wax ci nit yàlla yëpp rek Cheikh Ismaïl nag tey sama xarit di sama sëriñ di sama mbokk ñu bokk dëkk mbaagol waaye wax dëgg yàlla muy nit ku baax ku lewet koo xam ne ku ko am am nga kilifa te wax dëgg yàlla bis bi wax naa ko man duma ci ku ñuy jox ab cër waaye moom ab cëram mooy sama cër moo tax wax dëgg yàlla bëgguñu ci dara lu dul rek moom lim ci yéenee liggéeyal maamam suñu borom defal ko ko yéen ñii suñu borom booleeg moom it ngeen sant bu baax te xam ne li gën a jafe mooy kilifa gu mat kilifa ndax ñu bari am nañ kilifa de waaye saa yu ñu xëyee gis mu def lu jar ñu xeeb ko te duñ ko mën a bax kon su leen borom defalee ngeen am kilifa goo xam ne boo leen ko jàppee saa yu ñu xëyee ndam ak yokkute rek ak gis ko muy liggéeyal sëñ Tuubaa rek ci ngeen ko xam loolu moom tawféex la dama koy wax ne li gën a jafe nga def mooy biir bawal biir Tuubaa moom koy mën a fexe ba samp fi dara jàmbaar dëkk nga te loolu la ko sëñ bi defal. te mi ngi wër di ko tasaare mbuur ak fépp ci àdduna bi te loolu moom tawfeex dëgg la kon daal ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko tawfeex may ko fan gudd ak wér te dëppale ko ngërëmal maamam Serigne Touba. macha allah ginnaaw ba ñu sante yàlla di sant suñu ñaari waajur di sant bu baax sëñ Ismaïla macha allah kontaan nañ lool ci waañ bi ndax bañ bañ fi ñëwee ba tey daf ñoo doyloo bi ay ganam. bu leen indi fii la leen indi doyloo ñu lool Mbàkke waa ñu daal macha allah dara manqué wu fi dara dara dara manqué wu fi kontaan nañ lool ci bés bi bernde yi doy na lépp doy na macha allah kontaan nañ lool ñu ngi koy sant di ko gërëm Mbàkke Bàlla di ko ñaanal mu wér ak gudd fan lu mu mën ren yàlla na mën déwén lu ko ëpp ñu koy ñaanal mu dund dund dund ba nekk xalifa kër baayam Mbàkke Bàlla kontaan nañ ci moom lool rëccuwuñ lu tax mu dëkk ci koñ bi ndax euh, dimbale na ndaw ñi jàppale na mag ñi xale la nag waaye xale bu am ñam la ndax xale bu am diine la bu am lislaam la Mbàkke la wéral dundal loo dund dayul ñu ngi lay ñaanal bu baax Mbàkke dara mànkewul ci sa bés bi ataray murasi ayo bi ramati ألا ألاقي درا منك يا الله أثاري ملاسي أرجو برحمتي ألا ألاقي ñu nuyu bu baax sëriñ Ismaayila mi nga xam ne moom moo woote jataay bii tey nuyu bu baax mboolem kilifa yi nga xam ne fekk nañ leen fi ñoom ñépp ci mel ne sëriñ Maxtaar Silla sayxul asrar di nuyu mboolem njabootuk sayxul xaddim gi fi nekk ñëpp kàddu yu gàtt laa ciy wax te tënku muy sant sëriñ Ismaayila mi gërëm ko seede li ñu xam ci moom ndax day sunu xarit boo xam ne bu lépp weesoo yàgg nañoo jaxasoo lool moo xam fii ci dëkk bi la moo xam fële ca ndakaaru la yàgg nañoo ànd lool di tëddandoo di jugandoo di defandoo lu bari kon xam naa ko bu baax waaye musumaa xam ci moom lu weesu bëgg sëriñ Touba musumaa xam ci moom lu weesu itam am yitte yaatal liggéeyub sëriñ Touba bi fu mën a nekk ci réew mi loolu dafa fa nekke muy ndakaaru muy mbuur muy Touba Mbàkke gi kon ku fi nekk nanga ko ñaanal suñu borom defal ko fan wu gudd wu ànd ak wér ba lim am yéene liggéeyal maamam Cheikh Abdoul Khadir Mbacke mu def ci lu kawe njortam ñetti fan ci weeru tamxarit ci atum 1914 ci la ab Cheikh Abdoul Khadir Mbacke gane woon àddina muy bis ni tey jii bi mu ci ganee àddina itam indaale njëggaluk mboolem jullit yi waxuma la murit yi waaye jéggalu mboolem jullit yi la indaale ndax bi ñu demee ba ca bisu tam xarit ba ci la boroom Touba woo borom Daarul Muxti ba mu ñëw mu ne ko kaay dem ndaam nga tuddal ma gan googee nga xam ne ñëw na fa te feeñ ci soxna Aminta Bousso wax ko ne ko cerno sag dem ni ngay egge ba ni ngay dellusee na nga diibal say tànk ndax koo fi taseel ñu jéggal ko ay bakkaaram lii ci ganek àdduna ak Cheikh Abdoul Khadir la xewee ku gane àddinay ràmm waxtu wu màggee di ràmm ñu xam ne gaynde daa yëmmu kon ci gane àddinaam ci la indaale njëggalub jaam ñi moo tax ñu di ko màggal di ko woote fépp ci biir dëkk bi ak même ca bitim réew sëñ Abdou Khadir nag faw ñu wax ci loo xam ni lu ngeen di jariñoo lay doon loola dina ci doy sëkk ab yóbbal ñu xam ne nit la woon koo xam ni sëriñ Touba dafa simmeeku woon ci moom ba jeex tàkk mu nuru sëriñ Touba lool ci jëmm ji nuru sëriñ Touba lool jërëjëf sëñ Saliou nuru Serigne Touba lool ci wax ji nuru sëriñ Touba lool ci defin wi barewaa na ñoo xam ne gisoon nañ sëriñ Touba ginnaaw bu ñu gisaatee Serigne Abdul Xaadir du mën a téye seen bopp. ngir dañuy xam ne kañu gisoon lañu gisoon ci moom moo nekk ci kii ñu gisaat tey moo tax alaaji abdu Aziz Sy Dabakh ma nga xam ne xamoon na ko lool daan ñëw këram waxoon ko ne ko wakaana kal xadiimi fi mahabba xayril bariyati shafiil umma sëñ Abdou Xaadir dafa meloon ne ras yonente bi sallallahu alayhi wa sallam meloon ne sëriñ Tuubaa ci bëgg rasulullahi sëriñ Touba nan la mel ci bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama muy mahat mahabbati al muxtaara sayidana xubbil maganiya wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadil fidaau lahu abdan xadiman lahu muskaana li dafa bëggoon yonente bi ba ba wax ni bëgg gi mu bëgg rasulullahi moo dox digganteem ak bëgg lépp luy doom lépp luy alal lépp luy oto lépp luy waruwaay lépp luy kër mënatu koo bëgg ngir li mu bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh ne Cheikh Abdoul Khadir Mbacke mbëggeel googu la donne ci Serigne Touba ci rasulullah yi kon kooku bu ñu dajee di ko waxtaanee war nañoo fàttali nit ñi nan la fonke woon diine yéen ñi fi dajee ñëpp te bëgg sëñ Abdou Khadir kenn ku ci war a tee faat waxtu amu ci bis yi bu ñu koy màggal di ko fàttaliku loolu dong lay jariñ bu fekkente ne dañ fiy daje lekk naan coow coow lu bari tasaaroo dem suñu yoon amatul njariñ su boobaa jërul dajee saa bu ngeen fii dajee kenn ku nekk na xool lan la mën a jàngee ci dunduk Sëriñ Abdul Xaadir lu muy yóbbaale fa jëm bu demee mu di ko jëfee ba déwén bu ñëwee mu jëlaat beneen jikko bu bees mais dajee fi coow xaxaloo waxtaan joxante addiya tasaaroo dem mu jeex loolu amul njariñ loola moom képp koy wooteel Cheikh Abdul Xaadir te loola dong nar faa am mën nga koo bàyyi kenn du ko jariñoo loolu nag moo valable ci képp kuy doomi Serigne Touba ci ñu di ko wooteel moo tax bu ñu wootee lu mel nii ku fi teew la nga war a njëkk a def mooy ubbi say nopp fexe bay jariñoo kàddu yu rafet yi ñu fiy yëkkati ak ku ko mën di yëkkati nag donte ñaari baat nga ciy jàpp jariñoo ko yóbbu sa kër sax nga def ko kon xool leen ci jikkoy Serigne Abdou Khadre gi bi muy jiite jumaay Touba ji 1968 la ko tàmbali le 9 août ci la njëkk a taxaw ci kaw bar bi xutba bi mu tàmbalee le 9 août 1968 ba le 11 mai la mujj jiite ci jumaay Touba ji wala le 4 mai la mujj a jiite ci jumaay Touba ji le 9 août 1968 ba le 11 wala 4 mai 1990 boo ko xoolee 1159 vendredi moo fi am amu ci benn vendredi boo xam ne mas naa ñëw ñu ne sëñ Abdou Khadir julli si tey parce que lan dafa sibru amul benn vendredi boo xam ne mas naa ñëw ñu ne sëñ bi julli si wut ndax lan dafa girib wala sëñ bi julli siwut ndax lan yaramam dafa neexut te yooyu yëpp da ko doon gaar ni mu ñuy gaaree ñun mais jumaa ji mësta xam tawati sëñ Abdul Xaadir jumaa ji mësta xam yittey sëñ Abdul Xaadir minbar bi mësta xam yaram wu naqari wow sëñ Abdul Xaadir 1159 vendredi fukki vendredi ak benn la ci tardé la tax mu tardé ko 10 vendredi yi mi ngi ko tardé novembre 1976 bi mu demee Màkka fukki ajjuma la loolu benn ajjuma bi muy ajjumay 11 mai 1990 booba mi ngi waaj ngir tawat ju métte ju nekk ci kawam ba munta julli si te teewul sëñ jiili lappe neena na keroog bi sëñ Abdul Xaadir di julli mënta sax taxawal boppam ngir tawat ak métti moom moo ko doon téye julli gi mujj julli ci kaw suuf sëlmalu ko lan ngeen ci war a dégg kon ku fi teew tey tuddoo sëñ Abdul Xaadir mbaa nga bëgg sëñ Abdul Xaadir fexeel ba julli bu la ci kenn man looy mën a sàggana yow bu ci jaamu yàlla bokk te nag ay la yéwén koo xam ne ka nga yaakaar tayle bakkanam julli moo ko jaral mu tayle bakkanam julli ci kaw géej yow boo ko dee tuddoo mbaa nga bëgg ko kenn waru laa man ci jaamu yàlla nañu bàyyi naxante bi amut solo kon sopp Sëriñ Abdou Khadir lii lay jariñ ñoo ngi nuyu mbokki jullit yépp di nuyu mbokki taalibe yépp di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mahamadul Muntaxal Bachir di ko ñaanal sunu borom bàyyi ko fi lool ba mu lépp loo xam ne naal na ko liggéeyal sëñ Tuubaa mu ko dama ko bëggee ànd ko taalibe sëñ Tuubaa yépp di santaat yàlla bu baax ci bisub sëñ Abdul Xaadir bi nga xam ne fekke nañ ko xam naa damay tënk wax ji rek ngir temps bi loolaa tax ñu koy tënk waaye du génn ak sant sant gi nag fi ma koy njëkkee mooy ci sama mbokk yi nga xam ne ñoom la bakk bokkal sëñ Touba te ñu nekk ci jataay bi teewaaleel fi ñëpp ñi nga xam ne amoon nañu yéene teew di jëlaat cant gi di ko teg ci Cheikh Bachirou Sylla mi nga xam ne moo fi nekkal waa kër sëñ Madiba yëpp ak temps bi ni mu choree nga jël sa temps bi ñu ngi ci sant di sant it Serigne Bachirou Mbacke mi nga xam ne. sunuy wayjur ñoo bokk lépp muy sama xarit ñëpp xamee ñu ma ñu ngi koy sant bu baax di sant invité yi nga xam ne ni ñoom lañ invité woon ren di jaale ci sant gi di ci jiital sëriñ Sidil Maxtar Cheikhul Asrar euh, nga xam ne sama xarita ci lu bëree bëri ñu ci waxtaan ba bis bi yaakaar naa première lancement bi nga xam ne ni moom lañ def TFM moo ne ma ren ku ne xam ne appel ma jóob mais di liggéey TFM xam ne xam na ci dara appel ni mu seeree waaye lépp mu ne moo koy jaayante joxe ko nga xam ne appel bi li muy daw lépp ci ci alalam la génne kon nag ñu ngi koy sant di sant ñi màndal ñëpp di sant it sëriñ Mor Thian mi nga xam ne ñoo bokkoon daara di jàng alxuraan moo nekk nii nga xam ne at mu jot day jaayante jënd matt mu bari andi ko ba ñam mu fi nit lekk rek ginnaaw yàlla ci moo moo moo moo lu mel noonu boole kook alalam ak dooleem ak ay xaritam yi mu àndal ñëpp ñoo ngi leen di sant di leen gërëm dina leen ñaanal yàlla loo leen def ci liggéeyal sëñ Touba bu demee ne yàlla na ngeen man lu ko ëpp di nuyu it sëriñ Assane Ba ñoo bokk dëkk fii ci koñ bi muy sama xarit moom it mën a sonn ci ñun lool teraanga ju bari mu yëkkati jox ñu ko boole kook ànd ak ay xaritam ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant seexi sëñ Tuubaa yi nga xam ne teew nañ fi ak taalibe sëñ Tuubaa di ñaan bis bii yàlla nañ ko fekk at yu bëree bëri njabootuk sëñ Tuubaa fi teew it jël nañ nuyoo bi teg ko ci ñi nga xam ne ràññee naa leen ci mooy sëñ Fallu su Njaay ak sëriñ Modou Aysa ak sëriñ Seexuna Mbàkke jël wàllum bu soobe gi jox ko sëriñ Abdoulaat Buso nga xam ne waxtaan waa am solo wi lii rek laa soxla ci waxtaan mooy waxtaan wax dëgg da caa bokk te macha allah wax na ko duma ko répété waat di sant it ma jóg peex nga xam ne at mu jot gis nga ni muy sonnee ci ñun lu ne lay daj ci ñun kon nag foofu it sant ga day gàtt rek ndax lu ñu seq la te muy sama xarit di sant taalibe yépp muy góor jigéen mag ak ndaw di sant waa génération surtout imam di sant waa génération sécurité mooy sama mbokki taalib yi nekk jóge Mbuur di sant waa daayiratu Mbuur bi di sant it waa daayira HLM bi nga xam ne ni nii daam Dambay moo ko jiite ànd ko taalib yëpp di sant fédération bi yëpp di ko jël nuyoo bi di ko teg si loxol sëñ Cheikh Gueye ak sëriñ Cheikh Sey ak sëriñ Ousmane Wade ak képp koo xam ne àndal na ñoom àndoon nañ ci liggéey bi bu melee nii nag xol yu ànd rekk a ko waral bis bi it buñ koy def defuñ ko ngir aw fit defuñ ko ngir ak jàmbaar defuñ ko ngir ak ñeme dama jàpp ne troisième vague lay nekk ki nga xam ne moo fi nekkal sëñ Touba troisième vague la nekk ki fi nekkal sëñ Touba woote ay xasida ñëpp daje jàng alquran jàng xasida ñu xëy bisub sëñ Abdul Xaadir am te sëñ Moustapha Sali waxoon ne sëñ Abdul Xaadir daanaka mooy ay xasida sëñ Muntaxa jël lu mel noonu dendale ko bisub sëñ Abdul Xaadir damaa jàpp ne bu ma defee lu mel nii woo fi nit ñi lu baax dong laa ci sakku waaye du puukare du daraja du doole ndax awma ci lenn mbooloo mi nekk fii bu ñu téye woon sama loxo ci man du ma mënate dara kon nag ku ne maa ngi toog fa ma toog ku nekk fa nga nekk ak foo mën a toog jël naa yéenay xol ak pas-pas di la sant ci dañ-dañ gi nga doon def su subaat léegi damay bañ a tudd tur waaye gis naa seen taxawaay yéen ñëpp ñi mënoon a dem ci mbana yi ak ñi mënoon a dem ci waañ ak ñi manoon a for ku yëkk ci àll sa àll lu mu bari bari jàppal ne yaa ka doon bale te am yéene liggéey sëñ Tuubaa yéen yam ndax innama ma bi niyaati wa innama li kulli imrin ma nawa li nga yéene rek li may def nag yéenewuma ci lenn du liggéeyal sëñ tubaa bu dee lu baax am na ci yàlla nañu ko yàlla fulal ñu bokk bu dee ab am na ci yàlla nañu ko yàlla jéggal wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu fekk at yu bëri xanaa lenn li ma ci doole wax dama ko fàtte woon muy sama baay yi ci koñ bi nga xam ne suñu waajur lañ ñuy bokk bokk sëñ Tuubaa suñu waajur di ñu teete teete bàyyi ñeeg seen njaboot ñuy ànd guddeeg bëccëg ñoom nag ñu ngi leen di sant bu baax lool laa fàtte woon a wax ak képp koo xam ne nekk nga ci muy Modou Ndaw ak Cheikh Seck ak sëñ Galas mi fi jógee ñëpp rek maa ngi sant ñëpp ah, ak Serigne Saliou Mbacke waaw ñëpp maa ngi leen sant bu ko defee ah, Serigne Bamba Dior damaa bëgg mu ubbil ubbil ñu ci xasida yëkkatil ñu ci xasida bu ko defee nag Serigne Papa Gueye mi daal moom it ñëw yëngu. ndax fii keppaaru murit la bu ko defee sëriñ jaaji jël taw Tawfeex Mbaye eggale waaw ah, ñu ngi sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah bëggoon mu gaaw xam nanu la wër nanu la islam ci àdduna yow la fi am yaa ko dundal adde ko noonu yi terale ba kaw ren di yaa ko sole masaalikul jinaan sab ay la بكل هنيت الليل بخير الدين يا تصدر مسالك الجنون صد أين يا قوبي أبي دقيق دماء يبتدي يا سيدي خم خم فقجن لكن بتمول te tànnoo ajale nga ko taalibe ñu la jiitu te tànnoo a xam-xam fa nga ca ne la kenn jotewul te tànnoo ajale nga ko taalibe ñu la jiitu te tànnoo a xam-xam de fa nga ca ne la kenn jotewul te tànnoo ajale nga ko taalibe ñu la jiitu te tànnoo am nga gërëmal say waajur ya say ak fi toog Ahmadu nga topp ko yaa say doxin ak yu wëri sëriñ Sëriñ Tuuba mooy la asote ku na ci yow moom rek nga te ku la mooy asen taxa basiru nga ngay asere ju neex ji war na dunya ay wu fi ñëw nga fay ko yaw sëñ mu doxaay jàmbi réew kooku mooy Sëriñ Tuuba borom xasida yi Sëriñ Ismaïla sa maam ga dikal kooku mooy baayu si Abdul Xaadir Mbacke ilimaani tey ëllëg ku bëgg a jiili borom Baxdaad defal ni ñu màggal si Abdul Xaadir kooku mooy baayu Sëriñ Moodu Abdul Xaadir dégg naa ci ma jóg peex mu ni ku mës dem ci Sëriñ Saaliw mag naan diw ku baax la la baa na mi sëriñ Moodu moom sëriñ Abdou Khadir ku sopp sëriñ Moodu mu sëriñ Abdou Khadir dafa ni ñu màggal bàyyi imaam bi ana waa génération imaam be drapeau Sénégal teg ca wet ga nga xam ni ñii ci la paix la dox jàmm lañ bëgg yéen ay nitu dëgg sëñ Ismaïla mi ngeen bëgg maamam la yàlla bëgg jeunesse bi ndeysaan sopp Ahmadou ah, Ibra Fall jaraw lakk yow ku la bañ dala yow ku la bañ faal dala يوم القيامة فلك بلا فلوك خلومي طيبين على الجيت غلوة صباح جيخ ورا الصدر إمام بي يا غوري يا ام كل رخي دور دولوري جيزتو إمام بي أيوة ana la boo léegi ñu dem ci sa tur Dogono ndoy mbàkke maa la na woo ñun dërëw ci sa tur loo xam ne mënoon naa bañ a ñàkk leeral waaye dama koy leeralaale ngir Ismaayila li sëñ Touba wax ne moom Abdullahi wa xaadim rasul loolu loola tax may leeral lii may bëgg wax nga xam ne taalibi bi nga xam ne daa ñëwoon ci man ba ne aslamtu si jox naa la sama bopp adduna ak àllaaxira loo ma digal ma def loo ma tere ma bàyyi moom it da ci amaale ak liberté ak soppe bi nga xam ne. da xëy na loolu yàlla koy dogal waaye nag lii na li ma li ma jubloo leeral nii rek leeral naa ko ba tàyyi dama koy leeralaat donte doonu doonut lu am solo mooy képp koo xam ne nii danga ci man nga ajo woon képp koo xam ne ne ci man nga ajo woon te xam bi ngay jaayante sëñ Tuubaa rek taxoon ngay ànd man am na ak yeewi wala ak li ak ak yaatal wala woyafal goo xam ne ni képp koo xam ne xooloon nga ma te sëñ Tuubaa doy la nga ne danga ànd ak man dem ba ci yàgg sam xel di ñax-ñaxi yeewi naa la képp koo xam ne it demoon nga ba ci yàgg ngay am sikk sàkk ci man ba dem ba mënatoo ànd ak man lay woyofal buum gi mooy man teel naa lay jéggal ndax ñàkk fayda bokk na ci ngay ànd ak nit ba gisatoo la ca moom la la neex nga topp di wéy loolu kenn du ko ànd ak waa kër Sëñ Tuubaa loolu nag la ma ci jubloo leer mooy damaa xëccewut ay taalibe wutuma lenn luy propagande olof nee na mbër kër a jàggi ruur ñun amuñ ko di Sëñ Tuubaa yàlla jaarale ko ci Sëñ Abdul Xaadir ma yaakaar ne bu ma dee gor ma yaakaar ne bu ma dee gor ma yaakaar ne bisam bii bu ma xëyee suba teel mën naa am sax lu ma déplacé woo mën naa ko bañ a yor waaye bu ma wootee sëñ Abdou Khadir rek ñëpp a ñëw kon man lu ma am ci nit ñi laa ko war a yemalewaat loolu dong tax ma koy def waaye xëccu ma taalibe taalibe bu ñëw ba jokk ci manit dem ba gis ne doyatuma la man maa la njëkk a pour nga dem xooli keneen ko la doy ndax sëñ Tuubaa ko waxoon booy topp nit ba dem ba doyatu la xoolil keneen ko la doy kon yolomal naa képp koo xam ne nee nga mën nga doon dem ba ci àgg gisatoo la nga ma doon toppee demal nga seeti keneen njabootu sëñ Tuubaa gi bëri nañ te yaatu waaye nag ku ne na ngay liggéey ak ku ne mission ba nga yore di ko dox sama mission daal maa ngi ci jaamu yàlla ca sama kemtulaay kattan du ma ci njistal du ma wàlliyu du ma xut bu samaan Ismaahila laa tudd nit dong laa comme yéen ni ngeen di dundee laay dundee ni ngeen di jo moye yàlla laay moye yàlla ni ngeen di tuubee laay tuubee foofu laa nekk waaye xëccu mag wàlliyu xëccu ma xut bu samaan simple jaam la dong laa ni ngeen di xëyee di jubal di xëy di mooy noonu laay xëyee di jubal di xëy di mooy ku ma ci mën a topp topp ma ku ma ku ma ci munta topp bàyyi ma ñaanal ci baaxul sëñ Touba amuñ amuñ amuñ dara waaye nag am nañ njaag muy sëñ Touba te ñàkkut dara yàlla na la tibbal ba nga doyal maa ngi ñaan at mu ne rek nga yëg ne am nga ak yokkati ko te yaakaar naa am na lu ma la waxoon doonte mënuñ dara waaye sëñ Touba moom xam na li nekk sunu biir xol xam ne lan lu baax dong lañ bëgg waaye lu baax loolu ñuy def nag mën naam nag doomu aadama di ci jum waaye nag yow moom Ismaila daa doonut koo xam ne day jug di ñaawal waaye wolof nee na ragal féete ah loolu loolu danga sama natt waaye nag ñëpp la amal jàmm Mohamed ñaa balaa xam nga nit ñi nañoo gën a gaaw a jàppale say wax Mohamed ñaa amoon na yéene xëy na daa ñëwut waaye lii mu fi def keneen ku mën a doon ci àdduna boo fi ñëwoon mënoo def li muy def te lim doon def rek lañu sàkk waaye ñëpp muy Mohamed ñaa muy keneen ak keneen amoon yéene ñëw rek lii mu def doy na waaw doy na te duma ko weccoog kenn nag ñaanuma ko yàlla waaye nag ñëpp laa xaritool ba démb rek maa ngi déggante ak Mohamed waaye nag ngànt daa mënta ñàkk waaye ñëpp laa amal jàmm